Euh, euh, Moustapha balaa ñoo mhm. dem ci beneen sujet bi da ngay dégg ñu naan pourquoi amalaat yeneen waxtaan pourquoi d'autres euh, assises alors que amoon na yu amoon en 2018 est-ce que mhm. c'est la même chose est-ce que même nit yi la est que waxtaanu nawle la woon nga wax jox ma ma wax delloo la nga fas ci sa lafu sër ma fas ci sama lafu sër ñu xam ne dinañ ko jëfee est-ce que loolu mën nañ ko dégg que amoon na en 2018 pourquoi ñu war ko defaat dama lay jox réponse bi ci Bassirou Diomaye Faye joxe parce que loolu ay Tall Sall bind na ko démb. Ismaël Madior Fall bind na ko démb façon jaru ko parce que 2018 waxtaanoon ci de ba pare. Bassirou Diomaye Faye daf ci tontu tey suba parce que daf ne 2018 waxtaanoon nañ ba am lu ñu tënk ci njiitalu ministre la justice. Mhm. après mu ne 2018 ba 2024 six ans la six ans yooyu Sénégal traversé na fi loo xam ne ñun ñëpp mën nañoo d'accord ne dañu war a améliorer suñu justice. na et il raison. Mhm. ak lu ñu mënoon a tënk 2018 mm. li fi xew diggante 2021 ba 2024 war na tax ñun ñëpp ñu taxaw ne la ñu waxtaane woon mm. nañ ko indiwaa tegaat ko mm-hmm. loolu moo tax ñu ne ay échange yu inclusive mm-hmm. c'est-à-dire que ñi waxtaanoon 2018 xëy na magistrats yi la xëy na les acteurs de la justice xëy na le gouvernement et cetera et cetera mm-hmm. tey ñu ne na ñooñu seen waxtaan yooyu kenn du ko sànni lu baax la mais nañ ci dolli ñi nga xam ne diggante 2018 ak maintenant am nañ fi jafe-jafe ak yoon yóbbu nañ leen kaso tëj nañ leen dundañ nañ lii dund nañ lii dund nañ lii dund mhm. su ko defee suñu boolee yooyu yëpp ñu waxtaane ko doog tënk dara génne ko. loolu mooy tontu bi lu am solo et puis Diomaye nee na ce matin ce matin mhm. le président nee na que le dialogue se dans la paix en temps de paix la ñuy dialoguer. ku ci nekk wax sa xalaat. te wax na leen lu am solo. oui daf ne ci temps de paix la ñuy dialoguer. Mhm. te wax na dëgg doo bàyyi ba ay am comme ni ko Macky Sall defee woon. ba mm. gars yi xeex ba tàng ne ñu leen dialogue. mu ne temps de paix day permettre nga nga euh, nga am de des solutions préventives. Mm-hmm. pour mën a éviter xeex am. pour mën a éviter jàppante am. Mm-hmm. benn ñaareel ba et ça dama ko dégg mu neex ma ci li mu wax. Mm-hmm. daf ne nekkuñu fi pour def benn inquisition. contre telle ou telle autre personne. wutuñu ay coupable ñoo xam ne dañ leen di sànni di leen saaga. nekkuñu fi pour àtte magistrat yi. nekkuñu fi pour àtte waa justice. Mhm. dañu ñëw pour xool ñun ñëpp magistrat yeeg avocat yeeg euh, citoyen lambda yeeg ñëpp li ñu dund. Mhm. li ñu dund ñun diggante 60 ba léegi. Mhm. mais particulièrement li ñu dund ak Macky Sall. 2012 ba léegi. particulièrement 2021 ba léegi nan la ñuy def pour mu bañ a amati. di la am solo nan la ñuy def pour ñun ñëpp ñu am confiance ci suñu justice. mais loolu jar na waxtaane. oui jar na waxtaane parce que tey Bassirou Diomaye Faye su ñëwoon rek daan ah man kat. fekk naa fi ay waxtaan yoo xam ne euh, Macky Sall defoon na ko ba baax na. Mhm. léegi mën nañ ko fee teg ñu ne ko mais yow sëñ Bass finalement yab nga ñu. Mhm. parce que yow 2018 nga wax. loolu nga xam ne moom lañu ñu waxtaanee ba ne baax na. Mhm. loolu noonu 2018 ak léegi jàpp nañ la fa yow yóbbu kaso. te luñ ko jàppee. benn post <laughs> Facebook waaye léegi est-ce que Bassirou moom war na nangu ñuy continuer ci dund ci réew moo xam ne boo liggéey bu Moustapha Diop defee benn post wax xalaatam. ci ni magistrature doxee wala dara ñu yóbbu loolu moo tax waxtaan bi am solo. am na am na solo bu baax a baax. solo boobu lee jotaay te lépp luñ ci tënk rek incha allah. Mhm. ñu daal di koy jëfee sénégalais gis ci seen bopp bu baax ndax kaso yi moom doyoon na waar lool. am loo xam ne nag. il mhm. faut que ñu ñu bàyyi ci xel. Mhm. mooy suñu réformer parce que Diomaye wax na ko nee na principe yi élaboré ko baax na. réformer baax na mais du doy. il faut que ñu fexe ba ñi nga xam ne ñoo war a incarner la justice. Mm. Euh, mu am valeur yu nekk ci ñoom. waaw pour man c'est important. te valeur yooyu mooy tax sénégalais yi dellu am ci ñoom ngëm-ngëm. <laughs> Sénégal fii tey buñ nee magistrat buñ ne la Kéba Mbaye mm-hmm. nga ne nii. ñu ne la Ousmane Camara. nga ne nii. Mm-hmm. ñu ne la keneen ak keneen nga ne nii même récemment buñ ne la Saba Sissi nga ne nii buñ ne la. coon coon nga ne nii mm-hmm. ñu ne la Ousmane Diagne et cetera ak yeneen ah ñoo xam ne peut-être xaw ma leen mm-hmm. mais loolu magistrat yooyu pourtant ci même système bi lañ nekk. Mm-hmm. dëgg la waaye dañoo jikkoo ci même règle yi lañ àttee ñun àtte ñëpp mais dañoo jikkoo seen jikko yoo xam ne am na yoo xam ne duñ ko bañ. ko nangu loolu la voilà. tamit lu am mais mais bien <laughs> liir naa ci Ousmane Camara mu ne am na ay avancées yu bari yoo xam ne mm-hmm. ñoom euh, magistrature am na ko du temps de Abdou Diouf c'est pas des combats yoo ñoo mais c'est Kéba Mbaye lui-même. qui mm-hmm. était un peu le chef de famille. qui en discutait directement ak ak Abdou Diouf. ñu trouver ay ay ay ay di avancer. pour dire que système bi tamit nit ñi la. ñi la c'est important nit ñi la mi ngi noonu mhm. alors may fàttaliku euh, Moustapha Coro mhm. Maxu Mandela da ko doon jaral su may def émission wala dara day jooy mhm. jooy ne ma bëgguma nga dund li ma dund wallaay bëgguma nga dund li ma dund noppil non non non pour dire que li lu doy waar moo am ci kaso yi te xëy na boo ko dundul mënoo ko mais boo boo ko dundul mënoo koo xam boo ko dundul mënoo ko xam maa ngi lay wax sax ñu ne euh, l'UMS euh, ci recommandation yoo xam ne moom lañu moom la ñu def daf cee bokk une recommandation numéro 3. xam nga man mii wax naa la bu may commencé. dama mës a ne président de la république dafa war a génn conseil supérieur de la magistrature. waaw parce que damay gis ne bari na yu ñuy teg magistrat yi c'est parce que ay décisions politique moo leen ko yóbbee. Mhm. mais su ma liiree recommandation numéro 3 bu UMS dañ ne l'UMS l'union des magistrats sénégalais dit oui. Mhm. dit oui. à la présence continue du président de la République mhm. et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature hmm, d'accord ba pare yokk ci ne sous réserve et dans l'attente de la position officielle du président de la République sur l'opportunité ou non de sa présence au sein de ce conseil donc ñoom dañuy xaar président de la République muy Bassirou Diomaye Faye mu mhm. wax ba xam moom dafay continuer nekk ci wala déet. est-ce que c'est opportun wala c'est pas opportun. Mm-hmm. mais ñoom daal ñu ngi wax ne la présence du chef de l'État dans le conseil supérieur permet d'asseoir un cadre permanent. Mm-hmm. de discussion et d'échange entre l'exécutif et le judiciaire. Mm-hmm. loolu ci recommandation yi UMS def la. et pourtant man dama koy wax encore une fois. dama bokkoon ci ñi nga xam ne dañu gëm ne président de la daf ci war a génn. mais les magistrats yi n xam ne ñoom ñooy pratiquer le droit tous les jours des décisions tous les jours ils ils disent oui d'ailleurs oui. à la présence continue mm -hmm. du président de la République et du ministre de la justice mm -hmm. dans le conseil supérieur de la magistrature loolu loolu euh, euh, lu jar am lu am solo la je crois mhm. que c'est une réponse à Bassirou Diomaye Faye kii di. Mhm. nañu fexe ba bañ a am une république des juges mhm. loolu lu am lu am solo la moo tax waxtaan yi euh, man mhm. su ma sañoon danañ fexe ba euh, di ko wax ci wolof ñi ñiy déglu ak di seetaan gën a xam enjeu yi parce que am na solo loolu te wax na leneen moom Bassirou Diomaye Faye wax na ne y a les affaires pénales kil euh, yoo xam ne soxla na ay réflexion mais wax na ci les affaires civiles ni ñuy takkee soxna ci réew mi ni ñuy tasee ci réew mi. Mhm. ni ñuy euh, héritage ni ñu koy taxaw ni ñu koy. Euh, euh, ndono kii ndono. ni ñuy héritage ni ñu ko tuddee waaye. ndono la miraas. ni ñuy miraase. Mhm. ni ñuy miraase ci réew mi. Mhm. les problème de de de suuf am na kon ci jàpp xaw ma affaire yu mel noonu mais yooyu yëpp dafa waxtaan yi moo koy permettre. moo tax ma jàpp ne sax waxtaan yi man jàpp naa ne waroon na ëpp une semaine. une semaine waaw waroon nañoo jël. ay teg ay commission yoo xam ne lu mat weer wala ñaari weer. Mhm. dañuy déglu nit ñi kenn par kenn encore une fois loué des caméras. waaw après ñu tënk benn affaire. ne mhm. Sénégal fii ba 1900 nangam bi 2000 euh, nangam. kenn mhm. dootu fi soxla. di taxaw ci wàllu waxtaan yu demee noonu. mais mais am na solo que déjà. waaw donc ñu continuer rek di suivre. boobule jotaay. Euh, pour xool après lan lañ ci mën a jàpp incha allah alors euh, dañuy rester rek ci le duo Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. Moustapha la manipulation continue parce Sonko du Diomaye am na ñu koy wax ba tey daan nañ ko wax laata <laughs> élection yi ñu wax ko la après la présidentielle mu mel ni dafa am benn temps bu tuuti bu ñu bàyyi woon mais jamono ji yëf yi ça continue gis nga euh, man euh, am nañu bari ñu ma dégg ñu ciy wax mhm. bu doon ñoom kefe jaraluma toog fii di wax mhm. parce wolof mu wax ne bu pexeem noonu juboon xaw ma nuñ luñ ci teg sax mais en tout cas li ma bëgg a wax. mooy noonu démb tey. Ah, eh, pexe ma jubut exactement. Mhm. am na ñoo xam ne euh, seen pexe bu juboon waxuma la Bassirou Diomaye Faye nekk président Ousmane Sonko nekk premier ministre. Mhm. mais heure bii ña nga prison ñoom. am na ñoo xam ne bu seen pexe juboon ba Bassirou Diomaye Faye nekkee président du dana bu génneet du nekk na ñoo bu seen pexe juboon. su euh, Bassirou Diomaye Faye génnee nekk candidat tamit du gagné. waxi Pastef fii tamit kenn du ko waxati. voilà am na ñoo xam ne eh, exactement am na ñoo xam ne bu seen pexe juboon su Bassirou Diomaye Faye gagné nekk président aussi Ousmane Sonko du nekk premier ministre. Mm-hmm. dëgg la. ñooñu seen rêve le mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye tàqali ko. tàqali ko mais lan lañ siy gagné. ci laay ñëw ma wax la ne am na ñoo xam ne buñ ci doon wax fii ba. deux mille cinquante. jërul di waxtaane parce que waxuñu dara lu dul euh, yéene bu ñaaw. ak intérêt personnel. mais daf ci am benn waay boo xam ne presse sénégalaise daf ko bëgg lool. Hmm. waaw Bourgi lañ koy wooye Bourgi benn naar. d'accord presse dañ ko bëgg lool. ok que dama gis ci Ablaye Wade. Mhm. ci Abdou Diouf xëy na boobu élève laa di jàng mais ci Ablaye Wade ci Macky Sall. ba si Bassirou Diomaye Faye presse Sénégal sur des questions yoo xam ne sénégalais la concerné dañu am dañu am habitude un deux trois ñu jox ko parole def ko une journaux yi nit la koo xam ne ma nga Paris wala mu nekk diggante Paris ak Sénégal classe politique gu France am na ñu fa def kaso loxoom génn ci gis na loolu que nit ku jubul la ne ci ay ay loxoor rek lay nekk kooku doonu bi Ablaye Wade nekkee président dafa amoon ay duggam ak ay génnam ci palais bi ba am na ay temps sax moo kare waat du ñu am nu ñu nu ñu nu ñu kii woon Macky Sall nekk président mu garde ay affaire di dugg di génn di naan day dox ci diggante France ak Sénégal ak nangam ak nangam c'est un homme de réseau très réseauté qui a des relations partout en Afrique. Mhm. mais ñu mel noonu su Bassirou Diomaye Faye nekkee président Ousmane Sonko nekk premier ministre seeni affaire moom yàqu na. Hmm. mais dama ko liir ci benn journal. Mhm. muy wax ci Bassirou Diomaye fay ak euh, Ousmane Sonko. ne les tandems. les ne du jamais <laughs> mu ne les tandem maanaam ñaari nit mhm. ñu yore pouvoir di ko doxal mhm. mu ne ça ne dure jamais te booy wax fi mu koy teg mooy expérience bi mu am en Afrique parce que dafa gis ne Afrique bari na fi ñoo xam ne dañu ànd ensemble jël un pouvoir mhm. mais très vite kenn ki dagg bopp moroom ci soo ñëwee fii ci Sénégal Ablaye Wade dañ naan la dafa dem élection présidentielle en 2000 premier tour avec la CA 2000 la coalition pour l'alternance ñu yóbbu Abdou Diouf deuxième tour Moustapha Niasse ñëw doolee ko ci ñu tuddee ko FAL 2000 front pour l'alternance mhm. Moustapha Niasse moomu permettre Ablaye Wade mu daaneel Abdou Diouf mhm. Ablaye Wade def Moustapha Niasse premier ministre onze mois après Ablaye Wade dàq ko Ablaye Wade moo doon wax ne fauteuil présidentiel lañu wax kenn waxul banc présidentiel moom rek a ciy toog <laughs> lay Wade moomu mhm. ensuite ànd ak Idriss Seck dagg boppam. Mm-hmm. ànd ak Macky Sall dagg boppam. Mm-hmm. Macky Sall ñëw nekk président wu Sénégal jël Abdou Mbaye premier ministre yàggul dara mu dagg boppam. Mm-hmm. na Touré mu dagg boppam. ñeneen ak ñeneen ak ñeneen topp ci. Amadou Ba Amadou Ba moo ci mujj. ci soo demee en Afrique. dañ naan la Blaise Compaoré par exemple je donne des exemple ah Blaise Compaoré ak euh, Thomas Sankara nii la ñu woon. bi tubaab bi bëggee faagaagal Blaise euh, Thomas ci Blaise lañ jaar faagaagal ko. Mm-hmm. d'ailleurs très souvent da lay wan photo wu Thomas Sankara yow da ngay gis Blaise taxaw ci ginnaaw c'est nii mel. Mm-hmm. donc ku mel noonu su ne laa les les tandem ne dure jamais. Mm-hmm. moom ci histoire boobu mu daan gis la ko la ko teg. ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi naan Sonko du Diomaye. ñoom seen rêve. mooy am na sax koo ci wax leer nañ. mooy na Sonko libéré Diomaye xam nga luñ bëgg luñ gëm. waaw man waxtaan naa ci benn waay. Euh, na Sonko libéré Diomaye wala na. Diomaye libéré Sonko non non parce que pour ñoom li ñu bëgg a gëmloo mooy Ousmane Sonko c' est véritablement lui le président. ah ok c' est lui qui dirige. Mm-hmm. qui dirige. man dama ci waxtaan ak benn waay c' est un responsable de per parce que bi Diomaye nekkee président. Mm-hmm. dama def chronique yu bari où je disais que ne Ousmane Sonko moo war a nekk premier mu waa ji woo ma ne ma waaw waroo wax ne Ousmane Sonko moo war a nekk premier que président de la République euh, waruñu ko teg war kenn warul euh, parce que parce que parce que expliqué ba sonn. Mhm. moo tax ñii di wax nii li ñuy wax du ma parce que ñoom seen mébét dëgg-dëgg. Mhm. mooy un conflit am et le plus diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane su mhm. boobaa. waaw Ousmane moo téye le Pastef. wala boog waa lépp ci Pastef. su boobaa certainement comme li ko Cheikh Bara Ndiaye waxee dañ naan Ousmane Sonko day dem nekki opposant wu Diomaye Faye mhm. yore Pastefam ne damay jàkkaarloog moom parce que dama ko jàppale ba nekk président il m'a trahi mhm. su boobaa Diomaye Faye dafay soxla ce qu'on appelle une nouvelle majorité mhm. mooy daf ñuy delloo moom ci li Sénégal doon dund depuis 1960 tam xaw ñoo rey mooy ay transhumance cest à que ñu ci bari dañoo rêvé. waaw ñii lu ñu bañee nii. mooy mais loolay wax ji. Ah, xëy na bañ ñu seen i intérêt personnel. Ah, seen i intérêt personnel cest seen rêve mooy comme Diomaye fay seen président boo xam ne il n'a pas il n'avait pas un parti bu mu jiite. mu yóbbu ko pouvoir. ki nga xam ne moo jiite parti bi tee ko ñëpp xam ne c'est c'est c'est l'homme du parti quoi c'est le plus populaire. Mm-hmm. mooy son premier ministre tey seen rêve. mooy bu diggante bi tasee Ousmane Sonko xëy na il va garder sa popularité il va garder son parti mais Diomaye fay yor l'appareil d'État mhm. man koo xeexe ko neex su boobaa Diomaye moomu réflexe bi muy am mooy respect réflexe politicien yëpp mhm. mooy ne ah man kat comme waa ji laa àndaloon ba yor pouvoir te léegi bàyyi na ma ma ngay bëgg a jàkkaarloog man. Mhm. il faut ma am li Ablaye Wade doon wax une nouvelle majorité. moo tax Idriss Seck moo ko théorisé woon bi Ablaye Wade nekkee président. Mhm. ne ne nous avons une nouvelle majorité lu leen ko mayoon dañoo xëccoon waa PS yu baree bare bari dugal seen biir. Mhm. gars yi loolu mooy seen rêve. mais c'est grave diviser pour après infiltrer. infiltrer tu as tu as tout résumé. mu am beneen mooy tey dañoo am benn projet. mu daan